Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf kàddu njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay fës lool ci xëtu yéene kaay tey réew mi quotidien mu koy nettali di xam ne ni kon moom njiitu réew mi wax na ci fitna gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci campagne électorale bi sàkku na ci nag responsabilité bi nga xamante ne kilifay politique yi war nañ ko mën a jël ngir kon dàkkal yëf yi ngir dàkkal fitna gi Sud Quotidien di ñu xamal tamit ni njiitu réew mi ci boppam daal dinay artu jëmale ko ci leader politique politique yi ci Sénégal ci ab ndajeek taskatu xibaar yi ci samedi gi ci Ndakaaru président Diomaye sàkku nag ci leader politique yooyee ñu daal di wane seen maturité ak responsabilité dëgg bu ñuy xaar ci ñoom laataa mu yokk ni jëwriñ ju ñu dénk wàllub yoon dina ci ubbi ab l'enquête ngir responsabilité yépp ñu daal di koy mën a situer ba ñu situer nag responsabilité ci L'As Quotidien njiiti réew mi xamle na ni ñi ñu jàpp ni ñoo sooxe yooyu la fitna yoon dina dal seen kaw yoon daal dina jib ndax Le Soleil yéenekaay mu ngi ñuy xamal ni moom président Bassirou Diomaye Faye responsable ci yooyu la fitna na fexe ba daal di koy assumer kàddu yi mu yëkkati gannaaw ba mu jógee ci ab tukki ca Turquie mu mel ni moom njiitu réew mi taxaw na tembe ngir dakkal fitna gi ci campagne électorale bi moo taxit sonj na jëriñ ji ñu dénk wàllub yoon ngir mu indi leeral ci bépp kaaw fitna bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ba campagne bi dooree ak léegi fitna gi ñu nemmeeku ci géew politique gi moo tax Walf Quotidien di ñu xamal ni moom président Bassirou Diomaye Faye mel na gi fas waaye kàddu yi nga xamante ne fan yi yëpp njiitu réew mu ngi koy yëkkati enquête daf ci jàngat ni moom Bassirou Diomaye Faye dafa mel ni kuy wane gëdd gi nga xamante ne am na ko ba noppi di wane li nga xamante ne moom mooy sañ-sañam lu ko dalee critique yi nga xamante ne amoon na ci tabub Samba ya mu ngi wëyal ay sorties médiatiques yi nga xamante ne day gën a jëmmal li nga xamante ne moom mooy fam moom président Diomaye wane tamit fam ci lu li nga xamante ne moom la ñu war a waxtaane waat ci contrat ci contrat ak waa bi le quotidien di yëgle ni Diomaye mel na ni ku génnee bopp bi ci ndox mi ndax li mu xamle mooy intérêt wu Sénégal dinañu fexe ba ñu daal di ko ciy jël Diomaye ak Sonko di jël ay coup yi tukkee ci opposition bi source a mi fësal kàddu Amadou Ba ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Omar Anne daanaka li ñu yàkkul nguur gi dañu ko fàtte ci lu jëm ci coow lu bëri te gisaguñu lenn lu ñu def ba ci sax fitna gi ñu nemmeeku ci campagne gi te ñuy sàkku ñu daal di fexe ba yoon daal di ciy jip bu ko defee campagne bi mën a wéy ci jàmm leneen ci campagne bi bi ci biir l'évidence moo ne di week-end bi daal Pastef li mu jot ci ay soutien ni raliment bëri na lool Rahma Ndiaye rabalde du du Ñaña ca Thiès Baye mbay Niass ca Kaolack ba ci Mayacine Camara mi nga xamante ne moo nekkoon meeru Koungheul ñoom ñëpp fekki nañu Pastef l'observateur wax sax ci transhumance bi ñu nemmeeku jamono ji mu gis ni Sonko ci boppam jamono ji dafa mel ni ab suukar la ci kaw ay yamb ndax ñëpp a ngi koy wutali moom jiital Pastef bi nga xamante ne bu yàggul dara moo nekkoon ji nag ñi ko doon ŋàññi ñëpp daw wutali ko suñu naataango yu groupe Futur Média dénk ci sax kàddu ab psychologue ak sociologue ñuy jàngat comportement yi nga xamante ne duggulat ñu koy gis ci om politique yi ci Sénégal Sonko fës ci Vox Populi yéenekaay bi di jukki kaddu yi nga xamante ne moom premier ministre yëkkati na ko ca meeting bi xewoon ca Sikicoor wax na ci lu jëm ci affectation général Kandé ba noppi mel ni kuy dànkaafu ñi nga xamante ne dafa jàpp ni crise bi ci Casamance dañ ko bëgg jël tamit di ko politiquer les échos wax tamit ci kàddu yooye Sonko yëkkati na ko ci coowal Casamance muy dànkaafu opposition bi nga xamante ne danu koy jëfandikoo ci wàllu politique mu mel ni kàddu yooye nga xamante ne njiital Pastef yëkkati na ko yéenekaay bi mu ngi ñuy xamal ni tamit jur na coow ndax Yoro Dia ci boppam ŋàññi na ci taxawaay bi nga xamante ne Ousmane Sonko am na ko ci Ousmane Sonko li mu yëkkati ci coowal 1000 milliards ci ab compte bancaire ba ci sax anam yu ñuy sàccee alalu askan wi Macky Sall ak wàllub yoon ponk yooyu yëpp l'observateur waxtaan na ci ak Aliou Ndao procureur spécial bu CREI ba di révélation révélation la libération def ci marché gré à gré yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku diggante 2019 ba njeexital mars 2024 IGF mel ni kuy fësal bambula bi nga xamante ne nguur nga woon def nañ ko ñu xayma ko ci lu ëpp juróomi junni milliards te ci marché yooyu daanaka téeméer yoo jël juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar yépp dañu ko joxe te amul benn appel d'offre appel bi Eumeu def ci njiit lu yees bu CNG di Malick Ngom mu ngi ci biir réew mi sport moom njiital Taïchinga yëkkati na ko ba ci sax adversaire yi nga xamante ne moom lay xaar ci saison bi ñu dëgmal saison bi ñu nekk ci wàllub Ligue xeex bi tàmbale na diggante Tëngéej FC ak Jaraaf bu Ndakaaru record yéene kaay di yëgle ni gannaaw ñetteelu bëccëg bi ñu ndar képp ni ki démb ñaari club yi jamono ji ñoom ñoo tolloo ay poñ jàngeen jëf Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal énergie ñu leen doon may seen de presse